gym UMOA mooy ànd ak yéen di leen gunge ci màggal bi yëpp الغالي بفروضي وسنن وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء mbokku jullit yi mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ginnaaw bi ñu delloo santati borom bi subhaanahu wa taala comme ni ko jëmm ju tëdd ji di defee si ay xasidaam di ko tàmbalee noonu cheikhul xadim radiallahu taala anhu ñu ngi julli te sëlmal si ngeen ji bi def si yiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amati mbégte àndaat ak yéen ci wu tedd wi weeru barkel wi weeru ngëneel moom moo di chahru safar nga xam ne moom moo di weeru safar di weeru cheikhul xadim radiallahu taala anhu waaye xam ngeen ne seen télévision Futurs Médias boobaak léegi mu ngi ànd ak yéen ci waxtaan yi ànd ak yéen ci kuréel yi ànd ak yéen si documentaire yi ànd ak yéen si xibaaru màggal gi lépp ngir jëm ci li nga xam ne moom moo di yawmu thamina achar fi chahri safar di bésu fukkeel ak juróom-ñett si weeru safar di bés bi nga xam ne si la cheikhul xadim radiallahu taala anhu génnoon dem liggéey liggéeyal yàlla ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye jamono dox ba mu dellu sawaat fi moom Mbàkke bal andil ne sëriñ bu duun waaye balaa ñuy dugg fa tabarakallahu ci waxtaan wi dañuy nuyu di ziar alxalifa al am li taifa al muridiya kooku Mamadou Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ñaanal ka moom Serigne Muntaqa Mbacke yàlla defal ko gudd fan yàlla defal ko wér bàyyi ko fi mu yàgg fi lool lool lool lool ak njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp radiyallahu taala anhu noonu itam la ñuy nuyoo mboolem kilifa diine yi nekk ci réew mi yaakaar naa bu ñu duggee Tiwaawan ziar fa xalif ba. ziar nañ mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp ñaanal ko Serigne Babacar Sy Mansour yàlla defal ko gudd fan ak wér ak mboolem xulafaay yi nekk ci réew mi waaye itam noonu la ñuy ziar bu baax xalif général day Baye Fall moom itam ñaanal ko yàlla defal ko gudd fan ak wér ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp baabul muridiina waxtaan wi nag ànd ngeen ak si ay plateau yu am solo ak asatira yi nga xam ne ñoo nekk ci télévision Futur Média waaye di ziar bu baax borom kër gi président Youssou Ndour ñaanaan ko yàlla yàlla yokk ko dëgëral si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ak ay rakkam yëpp fa tabarakallahu macha allah jiital si Boubacar mi yor programme bi waaye directeur télé bi di ki nga xam ne moo di Ndiaga Ndour nga xam ne bu weeru safar wi teroo rek ak yeneen événement diine yi rek yaakaar naa ne képp koo xamante ni diine moo la bàyyi si télé bi rek jàpp naa ne moom sa sa sa temps jeex na lépp rek da ko si def yooyu yëpp dinañ si ñëw ci kanam kanam bu baax a baax tey nag suñu waxtaan ñu fas yéene si ànd fa tabarakallahu ak koo xamante nii sañ naa wax ne du ñu ñaar kenn lañu ni ko xale di waxee petit ba grand kooku moom moo di Serigne Moustapha Seck ngeen miin ko lool ci xasida yi miin ko itam ci ni nga xam ne mu noonu lay waxtaanee jëme su tedd ki Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu waaye itam miin ko ci anam bi nga xamante ni noonu lay faram fàccaa xasaa yi di ku tedd ki di Serigne Touba radiyallahu taala anhu Serigne Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar. am mbégte jàkkaarloo ak yow waaye itam Serigne Moustapha Seck bu Cheikh Mansour Diouf ndax ku ñu miin si jataayam la te itam si njabootam la bokk Serigne Moustapha gannaaw bi ñu la nuyoo ziar la jox la sa wàccuwaayu borom xam-xam ñi ngi am mbégte ànda ak yow ci télévision Futur Média si plateau spécial yi nga xamante ni ñu ngi koy amal boobaak léegi lépp rek jëm ci li nga xamante ni moom moo di yow ma saamina achar fii chehri safar ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média boo noppee rek incha allah ñu daal dee wax mbokk yi ndëg lii nga xam ne moom lañ leen préparel tey ci li nga xamante ni moom moo di plateau bu am solo bi ñu bàyyi la nga nuyoo aouzu billahi min alsheitan arrajim bismillahi arrahmani arrahim lil muntaxa xuttu am daahan xawat sadada salla alayhi allazi ata bihi almadada allahu faddalahu xalqan wa azamahu xulqan bihi liswaana kafa man xasada taslimu man sanani an kulli mafsadatin ala shafiin kafani kullama fasada xayratu rabbi nahlil jinaani bihi wallahu safa li arzaq wal balada fazat xayaati bi kawnillahi li abadan xama ayaali wasaana al jisma wal xalada asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aleykum salaam wa rahmatullahi taala Oustaz Sane maa ngi lay nuyu bu baax di la ziara di la bëgge itam ni nga ko waxee rek ni la demee daanaka ñoo defandoo lépp bokk dëkk ngay borom xam-xam di ko tedd di ko yàlla defar jikkoom maa ngi bég lool ànd ak yow plateau bi fas yéene ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ci weeram wi nga xam ni moom la waxoon ne xarajtu yawma sabti samina asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar waaye ci sama tàmbali waxtaan maa ngi nuyu nag sahibul fadila wa shajaa wal karam a cheikh Mouhamadoul Mountakha maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziara di ñaan sunu borom mu may ko mu yeggale ci barkeb Cheikh Amadou Bamba amiin radiyallahu ñu ngi nuyu bu baax sëriñ Amdi Fall Modou Mbend mi toog ci jotaayu maam Cheikh Ibra sunu borom may ko kattan ba mu yeggale li mu yéene te ko ci yoon wi sunu borom may ko kattanal mu yeggale waaye maa ngi nuyu jëmm joo xam ne tudd nga ko léegi mhm. muy a Cheikh Mansour juuf di gor di taalibe représenté Serigne Touba fii ci Ngor Wakam Yoof di liggéeykat boo xam ni liggéeyam rafet na lool waaye maa ngi ndokkeel mboolem jullit yi ak fu ñu a nekk ci àdduna waaye kilifa diine yi ŋànk réew mi ak fu ñu mën a toogee ci biir réew mi ñu leen di nuyu di leen ziyaare di leen jox itam seen wàccuwaay di ñaan sunu jotaay bii daal yàlla na ko sunu borom gërëm ci barkeb Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul asan radiyallahu taala anhu borom xaadaliyallahu hmm. moom cheikhul xadim hmm. radiallahu taala anhu maa lam yakuni hmm. walam yakun abadan li mumkini wa tabarakallahu noonu la ñu fas yéene ànd jërëjëf yow itam Moustapha si nuyoo hmm. bu am solo boobu waaye itam si nuyoo bi nga xamante ni def nga ko mu yaatu lool waaye ñu ngi nuyu bu baax mbooleem sénégalais fu mu nekk ci réew mi ak si bitim réew ndax xam ngeen ne seen télévision Futurs Médias dajal na àdduna ñoom itam ñi bëgg ñëw màggal se yal na leen yàlla indi si jàmm may leen xéewal goo xamante ni itam bu ñu ñëwee moom na ñuy àndaale si dëkk bu tëdd bi ndax berndeya ndax teral gat ña waaye itam ndax joxe li nga xamante ni moom moo di hadiya ndax borom tuuba radiallahu taala anhu moo ko waxoon tuuba li abdin muridin sadiqin lahu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati mm-hmm. kon loolu dafa nekk loo xamante ni lu ama am solo la kon sénégal yi nekk ci réew mi ak si bitim réew ñoom ñëpp képp ku takk la xasaay wala nga am yéene ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la ñaanal yàlla nga yegg si ak jàmm fekk fi jàmm delluwaat fa nga nekk si jàmm si daraja cheikhul xadim radiallahu anhu barka soppam ba sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xam ngeen ne jataay yi ni muy demee bu ñu dalalee gan gi waxtaan ak moom ca kanam tuuti dana am koo xamante ne moom la ñuy àndal mu yëkkati lenn ci xasaa'idi borom tuuba radiallahu rawatina yi nga xamante ni moom la ñuy tànn di ko waxtaane kooku moom moo di Serigne Ndiassé Diouf sa kanam tuuti incha allah dañu ànd ak moom mu ngi ci beneen plateau bi di waajal ndax xam ngeen ne ak Moustapha Seck moom noonu rek lay mën a demee sëñ Moustapha euh, dañu ne temu màggal gi ren gi mooy jàmm mhm. te la Cheikhul Khadim waxoon radiallahu anhu jàmm gisul lu ko gën fii gisul itam lu ko gën fa ñu jëm yàlla ñu ko yàlla defal amiin yaa rabbal alamin ak waaye tey dafa am benn xasida boo xamante moom la ñu tànn mhm. ngir fas yéene waxtaane ko barke dem rek ñu ngi dégg ku tedd ki borom mbég mi ñu ma koy woowee saaxibul ibtisaama al jamila kooku moom moo di a cheikh mouhamadinal muntaqa ayadahu llahu wa ataala baqaahu muy joxe ndigal suñ ko sañee waxee noonu ci matlabul fawzeyni bu ñu tuddee xasida bi rek kon war ngeen xam ne tey moom la ñu fa yéenee waxtaane ak hmm. jëmm ju tedd ji borom xam-xam bi di hmm. Serigne Moustapha Seck euh, mu bëgg nga ñëwal ñu ci matlabul fawzeyni hmm. sabab bi waaye si kanam tuuti incha allah danañu waxtaane sëñ bi lan la si nam lan la si dëxëñ ay njëriñam ak ay jàngaleem ak li nga xamante ni itam moom la tënk dëxëñ ko ci xasida boobu di matlabul fawzeyni mu jëm ci li nga xam ne moom moo di xormay dëkk bu tëdd bi nga xam xamante moom moo di Touba al Mubaraka ñu bari nag bu ñu déggee matlabul fawzeyni fawwu seen xel dem si bërëbu fajukaay yi ba nekk ca Touba nga xam ne moom lañ ka dippee nga xam ne mag fawzeyni moom ku ko yàlla defal nga texe àdduna texe àllaaxira yàlla nañu ko yàlla defal si barke borom Touba sababu matlabul fawzeyni seen Moustapha hmm. aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim jërëjëf sa sen ci laaj bi muy laaj bu ñu bari war a laaj waaye maa ngi nuyu sama doom ji ma àndal mhm. waroon naa ko tudd ci tàmbali waxtaan wi muy doom ci sëñ Abdoulahad Diouf macha allah di ko man xasida di ko ko lool mhm. fan yëpp ci safar bi ñoo ànd liggéey bi macha kon ñu ngi koy nuyu moom itam di ko jox wàccuwaayam mhm. Oustaz Assane xasida gi xasida gu am solo la bu bari njariñ gu bari ay maani te itam sëriñ Muntaxa bu yàggul mm. jox na ndigal joxe na ndigal ci xasida gi nañ koy jàng matlabul fawzi waaw gannaaw ba mu joxe ndigal ñu jàng alquran nga xam ne sëriñ bi léppam alquran moo ci jiitu mm-hmm. kitaabu rabbi innaka alkitaabu wa fiika qaala zalika alkitaabu mm-hmm. kon sëriñ Tuubaa léppam day alquran bi sëriñ Muntaxa joxe ndigalul alquran li lim ci teg mooy di joxe naa digal waxtu wu nekk nañ saxal jàng xasida gi tudd Matlabul Fawzayni te it am na mandarga mu koy mandargaal fii ci Touba. Mhm. hôpital bi ci gën a rëy tey jii turu Matlabul Fawzayni lay wuyoo. xasida la goo xam ne sëriñ bi mu ngi ko tënk ci ñaar téeméeri bayit ak fanweer ak juróom-benn. 236. waaw xasida gi dana toll ci 236 bayit. ñaar téeméer. ñaar téeméeri bayit ak fanweer ak juróom macha allah sëriñ bi itam mu ngi ko liggéey ci Touba. xasida gi mooy li garantie Touba. Mhm. xasida gi mooy li wane Touba ni mu war a mel. Mhm. lifi fi sëriñ bi bëgg ak li fi sëriñ bi tere. xam nga sëriñ bi dafa bëgg lool Touba te fonk ko te naw ko. Mhm. wajal maskani Touba abad. mistasmiha bi jaayi xayri man abad. loolu mu ngi ci biir xasida gi. baatu na ci alquran. Mm-hmm. allazina amanu wa amilu salihat tuuba lahum wa husnu maab mm-hmm. xam tuuba daanaka baat bi benn yoon la ñëw ci alquran ci suratu Raad mm-hmm. su ko defee nag sëriñ bi yàgg gu mu yàgg wër tuuba ndax nekk na fi mbakki kajoor jóge fi mbakki kajoor ñëw fi daaru salaam jóge salaam ñëw na fi mbakki bawol dégg nga ni yàlla dogale ci diggante at yooyu tuuba feeñ cheikh mamadou lamine wax na ne fii hasasi aw awaaili wamsasi wasasi mhm. ci njeexitaluk ama hasasi lay doon wala ci tàmbali wasasi mhm. nga xam ne sëriñ bi lim bëggoon lépp mooy Touba di ko wër di ko seet xam nga sax ci dunduk sëriñ Mor Anta Sali El Hadj Omar wëlliwu mag wa mhm. joxoon ñooñ na ab junj ci wane Touba ak daraje borom Touba ndax gane si na fi Serigne Touba ci waajuru Serigne Touba ci mbakki Bawal muy Serigne Moonante Sëli bi mu ko gane see ñu toog ab diir mu nuyoog moom saafonteeg mu bëgg a dem mu ne ko ah damaa bëggoon nga am sama mbokk moo xam ne damaa bëggoon nga nuyoog moom mu ne ko damaa ne ci aw yoon mu ne ko dimbali ma rek nga nuyoog moom kookee mooy Maam Baara Sadio Ba mhm. dëkkoon fii ci Bofel bi yàlla dogalee mu ganale ko ngan nga xaw a am ab diir am koo xam ne bajjan lay war a doon ci Serigne Touba. Mhm. tukki woon dem fu ñuy wax tey ba ndaw. Mhm. ay Aysatu Mbàkke néeg bi ñu dalal Sëñ Omar Fuutiyu Taal ne ko mooy néeg soxna si. soxna si jógee ci ab tukkeem ñëw dugg ci néeg bi ak ay bagaasam. Mhm. Cheikh Omar daal di fettax bëtt perma bërengu daanu xëm ñu koy dab ximmili ko mu daal ni ki duggoon ci néeg bi an kum doon ñu ne ko ah kooku day si Mor Sali ni ab jigéen lay doon ci man boobu sëriñ bi feeñagul. mu ne ko ah, moom de danaa ko caw yaru yoon ndax daf maa tooñ warta dugg ci néeg boo xam ne jigéen a nga ca ndax ilimaanu adduna kii moo ko war a nampal waaw ah, ilimaanu adduna dana juddu te kii ko war a nampal mooy bàjjanam léegi nag mu ne ko ah, jéggal ko rek jéggal ko rek tuubal ko wax nañ ne ndami eh, lami ndaa tell moom la wuti ak wurus ak ngalam jox ko Sina Omar Fuutiyu Taal mu ne ko jéggal naa la bur yàlla jéggal naa la te ramm naa la daan ne sëñ Sali da ngaa tawat te kawar yi ne ci sa yaram yëpp xool naa ko càllay wurus la mu nga càllalu ba ca aras sun borom dogal na dafa am doom yu tëdd sa digg gannaaw fekk judduwul doo wér kookay mooy doon ilimaanu adduna ñu daal di wooyi Mambaara Sadio Ba Mambaaro Mambaara laata muy jóg mu yebal ñaar dégg nga maam Omar Ka ak mam Ibra Kanni ba mu yebalee jox kii mbàjji jox kii ab dërëm kam jox ab dërëm Seena Omar Seena Omar Fuuti di ko xool di ko xool ba yàgg ne ko ana lu mu la jox mu ne ko ab dërëm la ma jox nee na sarax la moom mu téye ko mu téye ko delloo ko ne ko nee ko du lekk sarax dërëm bii fukki dërëm la mu nga ca bopp jàkkaam na ko solli des na fa juróom-ñeent daan na ki ci des ana lum la jox mun ko mbàjj la ma jox nee na mbàjji mii kat addiya la sina Omar nangoo koog ñaari loxo ne ko maa doon rasulillahi kon danaa ko nangu ne ko mbàjji mi ñetti mbàjji la ñaari mbàjji mu nga ca desaalay lalam na ko daj ci jox ma ko ma maa ko moom daan ne ko yow de bi mu lay yónni ab jarbaatam la ma Ibra ni Sow ne ko bi mu lay yónni da ngay jàngal doomam waaye danga ngaa gàc wala xaamin wala nasirin wala xaamin du ayin xaalonko la wala nasirin du siin saat la du dëgg mun ko axa kay mun ko boo demee ni ko ba mu taxawee di leen yebal sele ba yoon ba mu taxaw xaatimu Suleymaan la ci bind jinne ye ko taawu sonn nañ na ko far lu ko lu ko mooy du baax ci du baax ci moom daan ne sëñ Morante Sëli nag yow da nga am doom joo xam ne ma ngay feeñ ci atum sharaa su ca feeñee kookee mooy doon mooy doon ilimanu adduna dëkk bi ñëpp bëgg di ko seet di ko wër kookee moo koy moom mooy Touba mooy dëkk bii nga may laaj. macha allah dëkk boobu nag. mooy dëkk bi gën a tedd ci adduna mooy gën a mooy mooy Serigne Touba dëkkam bi mu gën a wóolu dëkkam bi mu gën a yaakaar li tax mu bind ko mooy bi ko liggéeye dafa ñaan sun borom lim bëgg ci dëkk bi ndax jàpp na ne moom bu dundee ak dundam gépp dëkk bi fa lay dem dëkkaale ak boromam te bis bu koy def itam rasulullahi dana ko teewee sallallahu alayhi waj al ilahi rasulallahi yahduruni inda nuzui wa inda dafni yallahu defal sunu borom keroog bu sama ruu di génn rasulullahi na ko teewe dëkk ba may dëkki ëllëg denc ba na ko rasulullahi teewe abdul xaadir jilaani na ko teewe abul xasan shazali na ko teewe abul abul abbas na ko mu muy cheikhu tidiane kàngam yu kàngam yu mag ya dëkkam boobu nag muy tuubaa gi nga xam ne moo gën a tedd waj al xarimana xariman amina wakun bi xifdihi kafilan damina wajbu laha alxayri min aljihati assitti wakfiha an il afati macha allah sun borom defal sama dëkk bii muy dëkk warma def ko muy dëkkub tedd nga mhm. def ko muy dëkkub diine mhm. def ko muy dëkkub rawukaay mhm. daal ni ñaan sunu borom ne ko maa ngi lay ñaan itam gis nga sax bi muy ñaan ci géej gi waxtu wu nekk xelam day dem ci Touba xelam day dem ci dëkk bi xelam day dem ci dara ji dëkk bi ak tedd ngay dëkk bi ijhal rujuhi ila qawmi saadatana wa takfina yowma jamul xalq niiraana di ñaan ci daraji dëkk bi ak tedd ngay dëkk bi habli idamata ma tuhbi wa tartadi fii maskani tuuba lati laka tunsalu kon jox na war ma dëkk bi jox na tedd nga dëkk bi ñaan na sunu borom ba suuf si ku fi yàlla dugal sunu borom jéggal la wa ardahu mm. ijhal arda risqin wa aman wa rahmatin wa saatin kulle awaan ya daafi al aswaa'i wal akdaari bil mustafa idfa kulle suun an daari macha allah kon mhm. cosaani dëkk bi mhm. bim ko gisee mu dellu siwaat rek ci laaj bi mhm. muy muy sababu matlabul fawzayni matlabul fawzayni ndax boo gisee sëñ bi ni mu ko tàmbalee sëñ Moustapha doguma la nga xam ne lii muy bëgg a wax ci xasida bi lu ko ñor la alhamdulillahi al karim zil minan mhm. lu mu sota ala istighali bi furudin wa sunan maanaam moom yitteem yëpp mooy alqur'aani yàlla ji ak ay farataam ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fexe mu sax ci moom waaye itam sax si li nga xamante ne moom moo di ci dëkk bu tedd bi nga xam ne moom moo di Touba chakartuhu mhm. li annahu qad saaqani li watan bihi nafa ma aqaani mais kaddu yi sëñ Moustapha waaw xam nga li ma leeral sànq ci diggante Mbacke Kajoor Daaru Salaam Mbacke Bawal mhm. ba ba wéet ak boromam ak di ko jaamu rek moo yitteem te dëkk ba mu sañc mhm. ba nit ñi bari dafay bëgg toxo toxoo sanc dëkk bu ni mel mhm. te dëkk bii mu doon wër di ko seet yàlla dafa dogal sax ca sanc ba mhm. fukki fan ak juróom ci euh, ci tabaski bi ñu tabaski ba bés ba dellusi si ci la Serigne Touba réer mooy fukki fan tabaski réer mër kenn gis ko ñu di ko wër di ko wër ba gis benn rëbb bu tudd buubu jaa buubu jaa buubu jaa mu mhm. leen lu ngeen di seet ñu ne ko Serigne tubaal la ñuy seet Ahmadul Mbakki yu dafa réer ci àll bi fukki fan ak juróom kenn gis ko quinze jours quinze jours gisuñu sëñ bi ñu di ko seet ñu di ko seet di ko seet ba ca bés ba mujj ba caw tabaski waaye fukki nit ak juróom ñoo ko doon wër di ko seet sëñ daam Abdourahmane Lo mi ci la bokkoon ku ñu wax sëñ Adama Sall ci la bokkoon ab lim lañu mat nañ fukki nit ak juróom di ko seet boobu jënd leen am na déeg bu ma seen ci àll bii ñuy wax mball am na jëmm ju ma fa seen xam naa kooke ngeen di seet ànd ak ñoom bu ñu rombee ngeer damm bu ñu rombee garab damm ba jege ko mën leen ma nga nee bañ gis ko mu dëpp moom ba ñu demee ba seen ko dañoo boof yegg suuf ñemewuñu yëg si ndax sëriñ bi ni mu mel ci jalaal ak jamaal ak tedd nga mu daal di muuñ ne leen bismillah moom Cheikhul Khadim moom Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ne leen dëkk bii laa doon wër ba di ko door a gis tey mooy Touba mooy Touba daan ne nañ ma fi wutal kër ñu daal di falat àll bi gor ko mu guddee quatre-vingt-dix mètres yaatoo soixante mètres mooy natt bu njëkk ba lool la sëñ Touba waxoon quatre-vingt-dix sur soixante quatre-vingt-dix sur soixante sëriñ Modou Moustapha ci passeefam ba mu koy bëgg a tabax def ko jumaa comme ko wan nga ne ko ah yow day ab tabax ngay wax te mm, euh, jàkkay sang sax yombul sëñ Mourou Moussa loole dolle ko aal moo tax mu yokk guddaay bi yóbbu ko cent vingt mètres yóbbu largeur bi quatre vingt dix mètres waaye Serigne Touba moom gis nga posté fam ak yéeneem li ko ci yàlla fayee. daal ne nañ ma fi defal kër ñu daal di gor wutal ko kër gu guddee quatre vingt dix mètres yaatoo soixante mètres Serigne bi nekk fa nag xaside yu njëkk yi fale leen taalifi xaside gii ngay laaj ca la bokk. matlabul fawz xasida gu mel ni xattaaba xalbiya lamma lahu sallama nii ca la bokk mhm. xasida raiya xalbi lahu fi xidaa fi atabil jismi takraaru li annahu lil huda wa nuuri jaraaru ca la bokk lu mel ni nuuni yi ak xasida yu mel ni noonu gi nag bopp xasida gi da wan sëriñ bi fi mu jëm ci roy rasulullahi sallallahu alayhi ndax rasulullahi mu ngi gàddaay ngi jàpp gàddaay gi ci muharram ama hijri yi koy jàpp ci gàddaay gi mhm, mhm. dégg nga bopp xasida gi bayit bi ñu ci junj mhm. day wane ne sëriñ bi moom mu ngi liggéey xasida gi ci bopp muharram moo tax sëriñ Mamadou Lamine Diop ci ak mandoom mu wax ne fii awaaxiri xasasin wala awaili wasasin ci jeexitalu xasasi wala tàmbali wasasi loolu day tolloog 1888 à peu près kon daal sëriñ bi su ma la déggee bu baax dafa topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mu gàddaa yoon sax mu tax samp si lu mel nii alhamdulillahi alkarimi zilminan ala ishtigali ala ishtigali bi furudin wa sunan mhm. shakartuhu li annahu qad saaxani mhm. li watanin bihi nafa ma aaqani mhm. wa qaadani ilayhi bittahalli min baadi ma hazaba bittahalli wa jarrani fihi ila al ulumi والفوز والأمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام طبعا على الذي قصد أن أتبعا على الذي من بمراده تدا في السر والجهر يكون مقتدى kii nga xam ne sama yéene ak pas-pas bii ma amee mooy roy ko ci jaamu yàlla ak dundal sunnaam ala allazi man bi muraadihi tada képp ko xam ne ci nammeelu yonent bi nga roy yakunu muqtada yow aju yow royteef nga yow nee na Sëriñ Tuubaa nee na ku roy mm. rasulillahi yow royteef nga kan ngay junj mu ne Muhammad ndax huwa allazi haajara bil madina lil madina bi amri rabbihi fasaana diina kon loolu moo lay tegtal ne xasida gi mu ngi ko liggéey ci boppu bopp muharram mm-hmm. ndax day topp rasulay ba ci doxinam huwa allazi haajara lil madina mm-hmm. bi amri rabbihi fasaana diina yont bi moo gàddaay ngir sañe dina ci ndégalul boromam gannaaw ba moom dañ ko dégg nga sax yont bi la mu waxoon sallallahu wallahi ba muy génn màkk mu ni mm-hmm. wallahi la anti wallahi innaki la xayru ardillahi mm. wa ahabu ardillahi ila llahi mm. wa lawla anni uxrijtu minki maa xarajtu moom la waxoon moom sallallahu ba muy génn mm-hmm. te loolu defe naa jàngo mm-hmm. mu ni wallahi maa ngi wat ci yàlla yow makka la xayru ardillahi yaay pàkk bi gënal yàlla ci kaw suuf mm-hmm. wa ahabu ardillahi ila llahi yaay pàkk bi nga xam ne pàkk yëpp yaa ci gën a tedd te mm. yàlla yàlla suñu borom yow la taamu ba néeg bi mu njëkk am ci kaw suuf fii mm. la ko def ci màkk est-ce que walaw laa anni uxrijtu minki man de mm. buñ ma génnewul woon ci dëkk bi maa xarajtu du ma ko génn mukk ndax bëgg màkk shawqan li màkk wa ahlu makka sëñ Moustapha dañu ànd ak sëñ Jaase mu may ñu tuuti si xasida yi ñu tooyal xol yi bu ñëwee dellu sewaat continuer waxtaan ci li nga xam ne moo di matlabul fawzayni ak ni nga xamante ni sëñ bi noonu la si digle li nga xam ne moom la bëgg ci dëkk bu tedd boobu ak la nga xamante ni itam moom la fay tere kon ñu ànd ak sëñ Ndiassé hmm. sëñ Ndiassé nañ la ñu bàyyi la nga tooyal xol yi tuuti rek incha allah ñu daal dee wéyal waxtaan wi jërëjëf yaa Oustaz nu nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu Papa Moustapha Seck yéen ñaar ñëpp samay nijaay ngeen ndax sama maa ngi leen di ziare bu wér xam naa bu ko defee nu barkeelu rek ci xaside yi incha allahu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 والغتن أبو زراف الأنجم وفي مجال الوثن أبو الوصيل والعزن باب الألام والخاتم أبو زراف الأنجم وفي مجال الوثن أبو الوصيل والعزن باب الألام والخاتم أبو زراف الأنجم سيدنا المكرم علي ومعظم مدلي دا أزمزم ماء الأزا والوجم خد خام خير البزري وسخيار زمره ilaa sëri takaburi kal badri wasa anjumi yawman bi sadal nidaal yawman bi sadal xidaal yawma taaru fi rijaal yawma ridaawal wanjumi yawman bi sadal nidaal يوما بازداد الختان يوم طاروا في رجال يوم رداء والوجه من وسالك اليوم فلا لاستداء والربان لدغاء والصلاة لكل شخص مسلم وسالك اليوم فلا لاستداء والربا لدغاء والصلاة لكل شخص مسلم يوما به قد غفارا سنوب من خلق دارا خلاله رب الوارى كبيرة كلامي لاحظه الخير زياب في زوي دار زياب وهم عود الخطاب ساور ديفاي لمم تنازل الموت معا والكل منهم سجحا يبغي لغا إسرعا لحب ما الخمم waxaataaloo man xad naa humusa fi usufa ataaxu baaru sataaxa bayna jabaani wa kaami summa nahaa mina samaa xaylul wa juludul asuma إلى رئيس الكرماء بسرا بخير وكم أمده رب الأنام بجند أملاك حساب لحدد لا للهام أرنو زويت عزم وفيهم إذ وردوا خلله الممجد جبريل نعم سند فوق جواد زيزمي وساروا إلى الكفاء ما سيغ في الورما حب صلاح وفلا خلف الإمام الأعظم وفيهم مبزر بكل خير همر سيدنا المتمر إذا كل مسلم ما شاء الله ما شاء الله جرجف jërëjëf sëñ Ndiasse si euh, yëkkati bu am solo boobu yàlla na yàlla fay te yàlla gën a wéral baat bi ci barke Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu sëñ Moustapha mm. ñëw nañ ci sababu matlabul fawzayni mm. ñëw nañ itam ci li nga xamante ni Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bi mu tàmbalee xasida gi rek xam nañ fi mu jëm mm. xam nañ nammateefam xam nañ itam li nga xam ne moo di ay bëgg-bëggam léegi bi ñu ñëwee ci ku tedd ki sëñ Touba radiyallahu taala anhu ci biir xasida gi wax na ci li nga xamante ni moom mooy nemmateefam si biir dëkk bu tedd bi te itam li mu fi bëgg ak li nga xamante ni bëgg ko fi mu mel ni sax sëñ bi ku tedd gi Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ci li nga xamante ni moom la Cheikhul Khadim bind si Matlabul Fawzayni moom si la nekk sànq ñu ngi koy waxtaane maanaam la bokk si coow li xam li xew moom moo ko gën sëriñ bi ak digle yeeg tere yi ci biir Matlabul Fawzayni si dëkk bu tedd bi jërëjëf Sëñ xam nga ci matla bi rek la waxee ni maqsadul xasida hmm. adduaa wa shukru aljaalibatu lizzaydi wa nasr matlabul xasida adduaa wa shukru aljaaliba lizzaydi wa nasr loolu mooy lan nee na xasida gi sama jubluwaay dëgg dëgg maqsadul xasida hmm. adduaa wa shukru ñaan fi yàlla ak santu ko ci matlabul fawzayni képp moo tax a jóg xasida gi nee na ñaar yooyu li muy waral aljaaliba hmm. lizzaydi wa nasr ndollent lay waral ak ndimbalul yàlla nasrun min allahi wa fathun qaribun wa bashiril muminin Tuuba dëkkub set la dëkk bu ñuy sete la dëkk bu ñuy baaxe la dëkk bu ñuy jage la Cheikh Ibra Fall la waxoon na ko wutal ma fi ñeent ñeenti pénc mu def ko ci biir fii armée li nekk fenn fu nekk moo sam fa mbaar yàlla miy dogal ci xalaatam ba mu demee ba ca daara ja dallu mhm. laaj sëriñ bi naa ko laaj moom bu liggéey ba soppi aw liggéeyin maanaam bu demee ba jóge fi ana fa muy tëdd maanaam bu demee bañ noppi koo gis bañ noppi gis ci bët ana fuy tëdd nee na ma ñëw laaj ko sëriñ bi ne ko boo demee bañ noppi laa gis ana fuñ lay siyaaree nee mun ko fii booba ak bépp moo fa ne fee ñoom buubu ja doon seet ba gis ko booba ak bépp moo fa ne fam ne woon nañ ma ko goral fàkkal ma ko ndax fii fi lay mujj tëdd Sëriñ Tuubaa wax na ni asamaan si li muy yaatu yaatu yaatu benn bunt la ubbi ko te fii la tiim waxoon na sëriñ Mandumbe ba daam ko ko siyaare si jox ko addiya mu ne ko Mandumbe demal sànnil ma xaalis bi sëriñ Mandumbe xabban waaw borom xabba ga fa dende nee na ma sànni ko fii jumaa ji tiim nee na bi mu dellu see toog rek mu ne ko Mandumbe jugal dem sulli ji xaalis ba xanaa déggoo xaalis bi ni muy jooyee la ilaha nee sëñ mënu be daw sulli xaalis ba mu ne ko demal sànni ko nee na ma sànni ko ci yoonu Saloum wa dellu si mu ne ma ma numbe nan dem nga wan ma fa nga suuloon xaalis ba nee mu ñëw ànd ak moom mu di ko suul Sëriñ Tuubaa naan ko ma numbe am paxa ngi moo xam ne su ëllëgee at buñ mën at mën at ni ci adduna te bu bu dogul bu dikkul fii du dog at buñ mën a at ci adduna bu dikkul fii du dog ma numbe maa ngi lay suulloo pax moo xam ne adduna li muy yaatu lépp asamaan si benn buntu la te fii la ubbi ko mënumbe la ngeen gën a xemmam fa Ndar ak Ndakaaru ëllëg dana ñëw dangeen ko gis ci sama dëkk bii da ko romb te bu boobaa ko faale daan na ko su ëllëgee fii la daan ni Cheikh Ibra Fall su ëllëgee fii la moo tax Cheikh ak Cheikh Mourou Moustapha ñoom Serigne Touba déyoon ne leen fañ koy denc ëllëg sëñ Moustapha ko yàlla yee la barab boobu nag mooy Touba li sëriñ bi bëgg moom wax na ko wal taxmi daari an il fujuuri wal fisqi wal baatili fi duhuuri sama dëkk bii nga xam ne fii lay mujj tëdd mhm. fii lañ may mujj gisee su ëllëgee nanga nga sañe dëkk bi wal taxmi daari an il fujuuri jëfi kàccoor jëfi musiba jëfi fitna ak naxante ak dóorante ak béjjanante ak teg diil sëriñ Tuubaa nee na sama dëkk bii sunu borom na ko sañe asan mhm. xanaa xamoo sëñ Tuubaa sama bët may na ma mu wax ni duyuuri hmm. duyuuri duyuuri hmm. daaru salaam Touba daarul minan dama tënk rek sanc ba ndax ba muy sanc da koo siddale ay quartier ni ajjana mel am juróom ñett ajjana yoo xam ne hmm. lépp wurus la ak jamaa ak nammel Serigne Touba dafa roy sunu borom bi muy sanc fi mu tudde ko daarul xuddus mu tudde ko daarul minan fii mu tudde ko daru rahman mhm. fii ñuy woowe daru minan mhm. nga xam ne mooy kër Serigne Basiru tey ak fii ñuy woowe darul xudus nga xam ne bi muy dem ci géej gi jàkkee sëñ Mbàkke Madina jooju fi la gisa rasulullah yi foofee la tudde darul xudus digg dëkk bi lépp mu tudde ko Touba ñi ko waroon nag bi muy gorlu ak ba muy sanc jóge Mbàkke Bari Jolof ñëw fi Daaru Salaam ñëw fi mbakke ba Touba feeñ kenn ku ne bi mu la gërëmee dalaa sancaloo ne la na nga dànd dëkk bi waaye su ajjuma jotee na ngeen julli di séddale fukki nit ak juróom benn yooyu mu séddale leen ñeenti xaaj sëriñ daam abdourahman Lo sëriñ Masamba job Sam sëriñ daaru Assane Ndiaye Cheikh Ibra Fall te liy firnde ji mooy ba ñu demee ñaari at ca gannaaw ba di 1890 ca la Cheikh Mouhamadou Lamine Baara feeñ Cheikh Moussa mu ngi feeñ ca tamxarit wa bañ ca tegee juróom benn weer di kës du rajab ci la Serigne Fallou feeñ fekk muy liggéey xasida gu tudd Matlabul Fawzeyni ba euh, fàttakul bisri kon ma fàttakul bisri boo déggee ñu naan Serigne Fallou moom la Serigne Touba way ci rasulullahi lu mën a nekk la ndax Serigne Touba rasulullahi la doon wax yaa fadilan faddalahu alxalaaxu yaa man bii faaraxanil imlaaxu kon Serigne Fallou rasulullahi la ko Serigne Touba tuddee kon Serigne Fallou lay way rasulullahi lay way bi yàlla dogalee mu séddale ñeenti xaaj yooyu daa di woo Serigne Massamba Diop Sam bésub keroog bi Cheikh Mamadou Limine Baara feeñee ci la Serigne wax lii ma lay bëgg a saasan mm. ad dayfu qad ataakum bi kaffati matalibikum li ngeen doon sàkku tey yàlla dogal na ko bi ma gisee Touba am Touba gan gi juddu tey feeñ di Cheikh Mamadou Lamine Baara indi wàlle na ko ad-dayfu qad ataakum bi kaffati matalibikum daal di leen ñaanal yeewi leen daal leen rek yaa rabbi ijhalil muridina maan fi hisnika alhasina wa shamlañ maa murid yëpp nañ leen boole nañ bokk ndey bokk baay macha allah dañ sanc boobu mhm. ca la gërëmi sëriñ Masamba Diop Sam ma Masamba job Sam yow ana loo bëgg mu ne ko man Mbàkke tànnal ma waaye li ma bëggoon sagem am naa ko sagem am nga ko te xam naa ne am nga ko man ma koo defal mooy ak nite defal ma ak nite yettal ma saam xel ba ak nite xacc nga defal ma ak bokk na ñi gënee nite ci yoonu murit sëriñ Masamba Diop Sam sëriñ Daaru Asan Njaay yow ana loo bëgg mu ne ko man xaw ma dara bi ma jàppee ci yow sama bëgg mooy yow loo ma tànnal baax na mu ne ko la bëgg sunu borom defal na la ko sëriñ Ndam yow ana loo bëgg mu ne ko man de bëgg naa ñaar sama néegum ndey bu ca kenn dem sawara sama waajur wu góor itam néegum ndeyam bu ca kenn dem sawara daal ni ko yoonu murit yoo bokk nag mooy ñaareel bi képp ku ci def bàkkaar bala war a yóbbu sawara nañ ma teg nañ ma def jëmmi malayika teg ma bàkkaar bi da bàyyi kooke moom mu mucc mu ne ko ñaar yee nangul nañ la ko ci dulul ab sart ba mujj bii nag danaa la ko nangul ci ab sart sa dund gépp da ngay naafilaa kaamil alxuraan ñaari rakk guddi gu ne sëñ daam def na ko cinquante deux ans juróom fukki at ak ñaar naafila na ko kaamel alxuraan daal di woo ko mujj ko nag ne ko yaw Ibra Fall loo bëgg mu ne ko man Mbàkke bëgguma dara man yow rek laa bëgg aw ma lu may bëgg ci aduna aw ma lu may bëgg ci àllaaxira man foo nekk ma fekk la fa lii rek laa bëgg maraat na kon demal sanc ci sow bi Cheikh Ibra Fall amul kër Touba. macha allah déedéet. Mhm. daa dem ba gébbu. Mhm. gébbu nee na mooy wanag yi Touba. Mhm. dongoom yi ak taalibe yi buñ masaana ñëw ci dëkk bi. buñ ñëwee ba jub dëkk ba dañuy tuur ndox foofee waaye nee na Tuuba fu ñuy sete la te fu ñuy sete ko fa taqe man Ibra Fall xaw ma fooy sete kon ñi dem Tuuba di moy aka caaxaan aka sàcc aka aka fen ngeen baal ma ci kaddu gi aka wax lu dul dëgg nee na sama xasida yi ñoo leen di feeñal zintu makatiba ta duuru bayna al arsi wal kursi tamxul may naa nee liggéey naa xeetu xasida goo xam ne Oustaz fen wu waay a tabax lum dëgër dëgër dëgër hmm. dana sama xaside yi ñoo koy dajji sànni ci àll ba faw sey mii ci la bokk mi ñuy waxtaane mi ñuy waxtaane ndax nee na hmm. wajal xarimana xariman amina wa kun bi hifzihi kafilan damina yàlla ko garanti ba yéen doomu aadama yi ci leen ëpp doole hmm. ba yàllay sàkk mu xuloog moom ca bind adama ba muy iblis mën na ci ku yàlla bind dara ba ci ab yonant iblis mën na ci yow dara waaye nee na ñaan naa ko moom sun borom na ma tinu ci daraji rasulillahi sange sama dëkk bi ba iblis xam du yuur yi laa yantahi laha dajjaalu wala lazina bil fasadi jaalu masiixu dajjal mii tukkal adduna ba saa bu yëngalee léeg-léeg mu créé guerre fee léeg-léeg mu créé fitna fii kii na yor naa bombe nucléaire kii ne yor naa lee Serigne ba nee na na seen xel dal du yuur yi laa yantahi laha dajjaalu wala lazina bil fasadi jaalu nee na masiixu dajal xamul sama dëkk bii daaru salaam daaru salaam mhm. nga xam ne ca sanc ba la ko may maam Cheikh Anta bañ sancee Touba rek ba Touba feeñ ca la woo maam Cheikh Anta borom daaru salaam Cheikh Sidi Gaawaan ne ko seex mu ne ko mbak mun ko daaru salaam ba sanc ba yeggee ana ñaata ñoo fu jibblu mu ne ko juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent mun ko boo ci boolee sabab muy ñaata mun ko téeméer mu ne ko may naa la ñooñee ak dëkk ba gàddaay mhm. bay fa lépp ñëw Touba. macha allah mm-hmm. dëkk la boo xam ne. wajlub laxal xayra min al jihaati assitti wa fiha an il sun borom xibla ñeent la ñëpp xam penku sow bëj gànnaar bëj saalum mu ne ko boole naa ci ci kaw ak ci suuf lépp ay xibla la te yaayor xiiwali ballal ko mu ñëw Touba sunu borom maa ngi lay ñaan na nga indi wërsëg ci xibla juróom benn na bàyyi ko fu ci àdduna yaquudu lii bila xurujin lil quran naf al quran sa nusilin ma al xira macha allah saasan hmm. sëriñ tubaa nee ak teraanga fu mu mën a nekk ci adduna lum baax baax baax hmm. ñoddil mu ñëw tuubaa akramani bila xuruji badani min watani bi nafi ahlil muduni macha allah njëriñ bi fu mën a nekk indi ko tuubaa kon tuubaa nu ñu war a mel hmm. baax yaru teey dal ba bay jubadi sëñ Muntaxa bi mu joxee sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda gaar bu mag ne nañ ko toj dañ faa rey ay nit rey nañ fa ñaari nit man demoon naa ca toj ba kiñ fa mujj rey Moustapha la tudd te Sëriñ Tuubaa Moustapha la roy di ko bëgg di ko xeeñtu daf i wa jël bii xidmatul haadil amin ne na sama yéene yëpp mooy liggéeyal Rasulullah ñuy rey ay nit barey ko tudd Moustapha fii ci gaar bu mag sëñ Muntaxa ne sëñ Amdi Fall Moodu lépp yay na ñi ñuy seetaan di ñu topp ci réew mi ak si bitim réew seen xol sedd na waaye itam fa tabarakallahu xel yëpp tey mu ngi ci dëkk bu tedd ba nga xam ne moo di Touba nga xam ne la mu laaj si ci xorma la mu laaj si ay teggin la mu laaj itam si yar moom la ñuy waxtaane tey jukkee ko ci li nga xamante ne moom moo di matlabul fawzayni te mooy sàkkukaayu ñaar yi nga xamante ne moom moo di ñaari texe yi adduna ak àllaaxira yal nañu ko borom bi subhanahu wa taala defal sëñ Jaase na nga wàcc yow laa jëm léegi sëñ Moustapha yaa ngi si xorma yi kon ku nekk itam war nga koy bàyyi xel ku fas yéene màggal see am na lu dëkk ba laaj nang ko topp lañ la fay tere na ko bàyyi bu màggal weesoo am na lu ñuy bëgg sa dëkk ba nang nga nekk am na lu ñu bëggul sa dëkk ba itam nang ko na nga ko ndax na ñuy bàyyi xel ne itam dëkk ba lañ fa diglee diglewuñu ko rek bu màggal ñëwee lañ fay tere itam terewuñ ko rek bu màggal ñëwee bu màggal jàllee loolu mooy woy bu màggal weesoo itam lañ fay tere rek fa tabarakallahu moom lañ fay tere te yaakaar naa ne nit foo war a defaroo boo demee ba yàqoo fa nag boo yedd bul yedd kenn ku dul sa bopp ndax su ma juumul sëñ Moustapha Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu mu ngi ñaanal ñi nga xamante ni itam dañu ñëw foofu ngir màggal si dañu ñëw ngir xitmaal ko di ko liggéeyal xattaa sax ñoo xamante ni dañu ñëw ngir ziyaar si ndax tey boo jëlee Touba la fay daje si màggal du ay minute képp déedéet jullit yàlla yëpp fay daje légal sax nga bokk daje fa ak ñoo xamante ni bokkuñu sax ak ñoom diine hmm. waaye dimension Serigne Touba radiallahu taala anhu moo ni toll hmm. ndax si biir matlabul fawzayni ba tey mu ngi ñaanal ñi koy xitma waaye itam am lu mu leen di dénk ñi koy xitmaal ñi ñëw di ziyaarse ak ñi nga xamante ni dañ itam ngir màggal se boo demee mu ngi wax naan wa kullu man xadama nii aw zaara hmm. fa najjihi waghfir lahu aw zaara wa kullu man ahabba ilayya farzuqu hudan wa maala wa kullu man shatamani aw laama fa hab lahu tawbata wa istislaama Cheikh Moustapha waaw xam nga dafa wax ni jërëjëf saasan yow yër nga xasida gi topp nga ko itam eh, macha allah wa kullu man mm. wa wa teg fa ñetti waaw la tegle door a teg fa wa kullu man xadamani aw saara jaasa dooma jàngal ñaari bayit yooyu alhamdulillahi كريم زلمنا الذي خالد لفرود وزنن وكل من خدمني أو زارا xaadima rasul nee na wa kullu man képp koo xam ne xadama nii dafa nekk ci xadma di ma liggéeyal aw zaara wala mu dikk Tuuba di ma siyaare wa kullu man xadama nii aw zaara mooy li kulli man xadamani aw jut bil muraadi wak fii aw saara ma siyaare faral bakkaaram yow yàlla wa kullu man xadamani aw saara foo mën a foo mën a jóge rek moo xam xam France nga jóge moo xam ci biir réew mi nga jóge da ngaa ñëw siyaare si Touba Serigne Touba nee faral bakkaaram ñaan ko yow yàlla nee na defal sama dëkk bii man xaari musul ba faw ba faw fi lay bi jaay xayri man abad xam nga Touba sajaratun fil janna xarasaxallahu bi yadihi garab la gu nekk ci àjjana yàlla ko jëmbatal boppam la xadis ba waxoon wasalliyan alayhi afdala salaam nga xam ne wa àjjana seen takkaay ak seeni lay xuy lépp mu ngi jóge ci garabu Touba su ëllëgee wa ali wa sabi sawi silaat nee na maa ngi lay ñaan waj al ilahi maskani Touba abad mistasmiha bi jay xëy man abat maa ngi lay ñaan Touba na mel ni turandoom wa ca aljanna wa kullu man xadama li awsaara kon yaa ngi door a ñëw nee na wa kullu man képp koo xam ne xadama ni da nga maa liggéeyal awsaara baa nga jóg di ma siyaare man xaadimu rasul fa najji wax fir loo awsaara fa na nga ko xettali yow yàlla am bàkkaar fii fegal mooy bàkkaar mooy awsaar ju mujj ji wa man ahabani aw maala ñaari awsaar la waaye wa kullu man wa kullu képp xam ne dafa jàng ci jëm ci man ngir ŋàññe ma ak xas ma man xaadima rasul ilayya farmuxudan aw maala jaase delluwaatal ci baydu ndax foofa man ndax mu mën a leer ci doomu aadama yi ŋàññ xaadima rasul ak dërëb xaadima rasul wa kullu man xadama li ansara nee na ku jóg di ma siyaare léeg-léeg ñu ne ah foofu jarta dem ndax màggal gi day xat accident yi bari na sëñ Tuubaa nee na bàyyil mu ñew rek fanaji waaye boo ñëwee am yar am teggin Sëriñ Tuubaa nee na sunu borom dox sa diggante ak bàkkaar jàllal wa kullu man satamani aw mala wa kullu man satamani loolu laa bëggoon mu ñëw wa kullu man satamani ku ma ŋàññ aw laama wala mu yedd ma naan Sëriñ Tuubaa li ngeen koy waxal ëpp na Sëriñ Tuubaa nee na déglu lii ma lay wax fa xawla tobata wat islaama na ko may at tawbata na tuubal yàlla wastislaama na jébbal yàlla boppam bala moo dem fakulu man ansa asanahu biya wa kullu man képp koo xam ne asa asanahu dafa ñaawal njortam biya ci man xaadimu rasul am ñaa ñaaw ci man xaadimu rasul fal ya qalbi xalbo ya rabbi ya na nga wëlbati xolam ba bam sopp ma ndax ñaaw njort ci man xaadimu rasul wóorul wérul ولتكفني أسى جميع العالمين ولتكفني nag ma fegal أسى جميع العالمين loru bindéef yëpp nag ma fegal seen lor ولتكفيهم أسى يا رب الأمين sama lor nag bindéef yi yàlla buñ ko xam yàlla buñ ko mos wajal binaa'iya wajal binaa'iya aafiya sama tabax bii Touba def ko muy tabaxub jàmm amin ya juru ni ilaa xoorin saafiya may jëmee nag di ñoon di ay ngeneel ak ay iwi ay yiw yu sell wajal binaa ya binaa alxilmi dégg nga nee sama tabax bi def ko muy tabaxub Touba moo tax bi ko liggéey ba noppi am na école bu nekk ci kaw moom lañ tuddee daar daara ji nga xam ne fa la kàngam yi yi di génn wa xammali bi sunnati wa xilmi nang ma def nag moo doon ko lawet daf moom borom wërsëg tey borom xam-xam wajal binaa ya na nga def sama dëkk bi Tuuba binaan ihtidaa muy dëkkub jub waltak fi hanni kay da kulli si tidaay ma fegal pexe mu ko xam ne ziatidaa daf may noonu man Xaadimu Rasuul waltak fi ni aba dara seytaana nang nu fegal pexem seytaane diirub jamono ñaar wa xisbihi baaxiina fil awtaani wa xisbihi baaxiina fil awtaani ak kuréelam gi nga xam ne dañoo beew ci jamono wa takfi xanni kula saxsin lam yuree nee na ku bëggul yàlla nag bu ma fekk fii fi dëkk bi fii fi Tuuba wañaka fadri sarian isyarin nag ma wëlbatil képp koo xam ne namul yàlla bu ma fekk Tuuba wal tasrifan jumlata ma yusidun lépp loo xam ne day yàq bu mu jublu Touba. yeddi waa aldaari sari aysuwan. jërëjëf Ndiasse tubaarkàlla. macha allah macha allah. yeddi wa andaari xaysu an sama loxo sama tënk. Mm. loo xam ne du ma ci jëfale sama kër lu yàlla gërëmul itam bu mu dugg ci kër gi lépp lu yàlla gërëm nag na ñëw. la ilaha illallah monsieur Moustapha. Mm. xam nga dafa am lu yéeme. ci xasida bi Ndiasse maa ngi ñëw si yow. Mm. Euh, tey boo xoolee jamono ji lu ñuy dund. ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu lii ba mu ko waxee hmm. ëpp na téeméeri at hmm. tey ñuy dund lu ni mel hmm. ndax wax na ko te itam yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy baamu léegi wa kullu man sota sotama nii aw laama fa hëb lahu tawbata wastislaama képp koo xamante ni yëkki na kaddu gu tegginewul jëmale ko si moom cheikhul xadim radiallahu anhu nee na na nga gaaw tuub moo gën a wóor wastislaama te itam gaaw jébbalu waaw bala ngaa dem bala ngaa dem ndax moo gën a wóor mhm. sama xel dem ci la mu waxoon ca euh, ajaaba ni xayru baaqin mhm. qulubu man lam yuhibbuni ala wajlin wala yanaalu ma raamu wala wala albaaba yanqaadu li kulla ma raamun kiraam munan mu mel ni kon sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu hmm. dànkaafu na képp koo xamante ni da ngay yëkkati kàddu yu sofaan hmm. ak kàddu yoo xamante ni nakk sudul noonu la ak yu ñàkk teggin di ko jëmale ci moom mhm. jëmmam ji mhm. waaye itam da ngay laawaale ñëpp ñoo xamante ni tamit ay nitu yàlla lañ mhm. nga xadis ba waxoon naa ko fi si atam waaw am ñu kii nangam sangam waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax dama waxoon ne ku bëggul ku bëggul cheikhul xadim radiallahu taala anhu boo deewee doo seen ajjana yàlla moo ko wax si xadisul qudsi dëgg la ne man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb yàlla nee ne ku fekk sama waliyu nga noonoo ko man yàlla déclaré naa la guerre. Hmm. léegi may laaj ku yàlla déclaré guerre foo jëm. ah ci sofaan ba rek. sofaan nga jëm yàlla ñu incha allah musul. Hmm. kon tey ndekete sëñ Moussa Gueye laay mu baax ma hmm. dafa wax wax bu am solo. mu ne léeg-léeg nit dana yëkkati kàddu wax ko si jaamu yàlla koo xam ne fa mu yegg sa yàlla kenn xamul lu mu toll. nga wax kaddu sofaan gannaaw kaddu sofaan yooyu. nga wanaasu taflit ya mu dugg sa biir. lor nee na dana la jural loraange. ak wéradi ak jafe-jafe yoo xamante nii ba na jahannama hmm. du la wàcc hmm. kon dafa jaadu hmm. ak ñiñ ko sañ a wax kaddu yi jëm si kilifa yu tëdd yi na rafet na sell na ànd ak yar na ànd ak teggi na ànd ak xorma ndax itam loolu dafa nekk loo xamante ni luy jëriñ la fii ëllëg luy jëriñu itam fa nga xamante ni fa lu jëm fa ñu jëm ëllëg mu yowmal qiyaam nga xam ne cheikhul xadim radiallahu taala anhu teel na dànkaafu kon moom su ma sañee wax dama naan dafa anticiper loo xamante ni xamoon na ne lii dana ñëw sëñ Moustapha Oustaz Assane boo gisee ma bëgg la ñoo màggandoo yarandoo defandoo lépp mhm. waaye média day soppi nit ak teraanga waaye yow soppi ko da ngaa gën a baax gën a yaru gën bëgg sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu fi defoon def na buzz wër na adduna mhm. ku la ci ngàññi moo xam waaye nee na loolu yàlla ko waxal moom man aadali waliyan sëriñ Tuubaa bi ah, bi xadis ba muy xadis qudsi bu wér gis naa sax ñuy dingat xadis yu Tuubaa yi waaye yonent bi dafa waxoon ne addiinu bada'a xariban wa sa yaudu xariban fa tuuba lil xuraba tuuba lil xuraba waaw moom mu tumurankel boppam xariban la dal ahda sax la wax far moom moom cheikhul xadim xariban la dal ahda yi man ñu tumurankel ma ci samay noonu ngir lan tuuba fa tuuba lil xuraba fa tuuba lil xuraba wallahi alazim léegi nag cheikhul xadim yàlla Sëriñ Tuubaa nee na ci tontu ci lii nga wax mm-hmm. nee na yàlla may yéegal wan ma lawhul mahfuz ku weddi nag yaa xam waaye sëñ Tuubaa nee na yàlla wan na ma lawhul mahfuz loxo ku aj fa yàlla teg cër yi di ko séddale hmm. loxo ku aj naan yeggu fa bay jëlee fu jàmbur dëgg la nee na yàlla ma yéegal wan ma lawhul mahfuz sëriñ Tuubaa gis nga lawhul mahfuz nee na gis naa ko biir ak bit moo waral bu may bind sax damay toxale ca lawhul mahfuz anqulu min allawhi wa min qalamihi wa fi hurufi lam amin nee na moo tax bu may bind léeg-léeg ma dem ca lawhu léeg-léeg ma dem ca xalam macha allah di ma wan ba wan ma lawhul mahfuz wax ma ni ma shaqiyun man lam yahwak nee na ma gin ma gis ñu bind ci lawhul mahfuz ahmadul xadim ku la toppul dem safara nee na ma laaj sunu borom ne ko ndax sañ naa koo biral mu ne ma sañ nga ko nee na bi ma dellusee laa bind shaqaawu man lam yahwani xat kutiba fii lawhika allazi yufidul kutuba bayit woowu loolu tax Sëriñ Tuubaa bind ko shaqaawu man lam yahwani texee di képp koo xam ne sopp ma xat kutiba bind nañ ko fii lawhika allazi yufidul kutuba fa ndayi téere ya nag nee na ku ma soppul sax taxee di ma ngi fu ñu bind duñ ko far tawaafu man lam yahwani bayna daria wa bayna zaqumin kat yu këb ki bu saria macha allah nee na ku ma bañ kenn manta de nga baagante diggante safara ak ndox mu tàng ma mooy li ma wax sànq rek xulubu man lam yuhibbu ala wajëleen wala mooy lan tekkil ñu ko xulubu man lam yuhibbu nii xolub képp ku ma soppul ala wajëleen te ku ko soppul bañ nga ko bañ nga ko mooy kaddu gi rek nañ ko wax isil xasudu laysa zantifa ala wajëleen mooy lan xulubu man lam yuhibbu nii ala wajëleen mooy lan xolub ku ma soppul ala wajëleen ci njaaxara ngay dëkk wala yulaaxuuna maaraamu ñooyu ñëpp luñ bëgg duñ ko am lu ñuy sàkk duñ ko am ak luñ mën a am léeg-léeg sax dañ ciy gis koo xam ne day bañ sëñ bi di ko diingat waaye doom jëm gën a bëgg taamu ko mu tàmbali ci liggéey ñaari weer lay liggéey faatu walal baaba walal baaba bunt boo fëgg ba yaakaar des ci nga naan suba lay ubbi ko ginnaaw suba ñu tëj ko ràcc dootul sa ko sànni ci abi jë ndax sa ñàkk cofeel si jëmm ju tëj ñàkk cofeel ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nee na nafa an yi wa biya yan faul wara yàlla jëriñ na ma nee na ma léegi njëriñal doomu aadama yi ci yow laa ko teg moo tax mu bind jaawa sunnaas wa maa fi aydi naasi ila rabbi naasi fa lamma wasaltu ila rabbi nnaasi aataani naf annaasi wa kafaani durra nnaasi saasan est-ce que sëñ tubaa ne radiallahu anhu jaawastu naas nit ñi romb naa leen waxuma ak ñoom foo jëm mu ne ila rabbi nnaasi yàlla mi leen bind foofee falaa si borom jaam yi fa lamma wasaltu ila rabbi nnaasi ba ma yeggee ci yàlla mi borom nit ñi ahtaani foofee la ma joxe naf annaasi njëriñul doomu adama yi wa kafaani fegal na ma durra nnaasi loru doomu aadama yi xanaa xamoon ne sëñ tubaa bañ ko ak ngàññ ko da koy yokk ak dolliku xam nga léeg-léeg dafa xew dañ koy waxtaanee. waaw ndax la nga gis ku def vidéo doonatuma taalibe nangam ma ne la yow Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moo la génn si boppam xam nga lu tax. Hmm. la mu waxoon moom sëñ Touba radiyallahu taala anhu. Hmm. wa alini wa ali man yuinu nii wal takfini jumlata maa yuhiinu nii. loolu dëgg la moom. moom moo ko waxal boppam moom Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu loolu ku mu dal yow bul jàpp ne sa njàmbaar la wala sa bëgg-bëgg la. wa alini wa ali man yuhiinu nii. mu ngi noonu. dëgg la moom si boppam. moo moo moo la génn si boppam. dëgg la te yëguloo ko. dëgg la te yëguloo ko. dëgg la kon dafa nekk loo xamante nii lu jar a bàyyi xel la waaye itam lu mat a fàttewaat li mat a fàttaliwaat la ndax jëmm ci dañu sëñ Mountakha radiyallahu anhu waxan nañ ko dañ koy répété parce que démb la joxe ndigal si xasida gi te li tax mu joxe ndigal si xasida gi gëm naa ne bokk na si nit ñi ñëwaat xalaataat comme ni ko tubaab bi day waxee revenir encore à la raison Cheikh Moustapha waa xam nga bu fekkee politique moo la booleeg Serigne Mountakha wala Cheikh Amadou Bamba. Hmm. moom man ngaa teel a démissionné. Cheikh Bass naa ne sëñ Touba radiyallahu anhu yorul parti politique. sëñ Touba yorul parti politique. politiqueul yorul yorul mouvement. déedéet yoruñu yorul mouvement. yoon wu jëme ci yàlla coow moom la yore. Serigne Touba daal. Hmm. moom li mu wax mooy. inni abduhu xaadimun lin nabi naawiya na fi aqrabin wa ajnabi. loolu mooy lan. mooy inni naka man. Hmm. abduhu jaam yàlla laa. xaadimun lin nabi sax ci liggéeyal rasul lay dakk naaw ye na fi aqrabin fas yéene yéene jariñ ku ma xam ak ku ma xamul ku jege ak ku sori laay jariñ mooy za naf in bila dararin dégg naa ñu naan za nafsin déedéet za nafain an naf u njariñ mu ngi bàyyi ko ci yàlla an naf u wa durru min ad naf u min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaani mhm. njariñ loolu lay wax yàlla Sëriñ Tuubaa nee njariñ boroom njariñ laa lu àndut ak lor kon politique ak bëgg daraja te yàlla joxula ko wala nga ànd ak si nit ñu galgal ko loole ña mu séqal làng gi rek la waaye sëñ Muntaxa moom fam ne moom xam na li mu ne sànq bi ñu toogee maag yow di waxtaan dang ne ma sëñ Muntaxa daa xam li xew ba yàgg nga ne ma xam bokk ci cooli xam li xew da koo gën te muy dëgg moom daa xam li xew wallaay dëgg la gis nga politique ak adduna gis mm. naa ci koo xam ne nee na sëñ Muntaxa bu waxul ma dindi sama njébbal ñun àjjana leen jëm di te lii adduna la Cheikh Ibra Fall nag moom kon yey na ñëpp neex woon na Serigne Touba man adduna soxlawuma fi kër Serigne Touba ne ko laa tarju min ne harisan ko fadlan an ahlin wa daari am kër samp fi kër ba am doom du fi amee bul ko yaakaar ci man bu la amee rek da ko fay dab waaye bul ko yaakaar ci man mun ko naa la ilaha illallah ko yow nguur nga bëgg ama goo ko ne damay jindi sama ngëb te moom dafa ñaanoon sax moom Serigne Touba radiallahu taala anhu képp koo xamante ne nii yow na mu bëgg meloo ko non na la yàlla tàggal ak moom wal tuxrijil axyaara min fuaadi dëgg la wal tudxilil anwaara fii hihaadi waaw sama xol na nga ci tabbal leer tabbal ci gaañu baax ñi naa ànd ak ñoom liggéey bi lépp lu bokkul nag ab sofaan na génn ci man mooy axyaar lépp loo xam ne yàlla tànn ko bokkul ci lu yàlla gërëm na génn ak ku sofaanu ak ku sofaanu na ma sori na ma sori bu mu ma jegee Sëriñ Tuubaa abraar yi la àndal àndul ak fujaar yi asiru ma al abrari maa asiru ma al ab hiina asiru wa zannan ida anni hunaka asiru masiri ma al axyaari lillahi bin nabi moo tax defe naa zunnun al misri lay war a doon ci kàngami mm-hmm. yàlla yi newoon na mm-hmm. suxbatul axyaar mm-hmm. xayrun min fiilil xayri tamuy dëgg nee na ànd ak gaa yu baax yi moo gën bari di jëf-jëf ju baax day day day day day day day dellu si xadis yoon sallallahu alayhi wasallam waaw ba mu waxee ne masalul euh, euh, jëli si suu ba ah. masal jëli si nee na ki nga xam ne day toog ak nit ku baax ah. day mel ni ku dem ku fu ñuy jaayee parfum nga jënd wala ñu may la wala ñu ne la am xeeñu dëgg la ku baax noonu lay def kon Oustaz Assane dëkk bi daal hmm. wajal ilahi maskani tuuba abad wallaay loolu la ñaanoon moom jàppoon na ne ci dëkk bii fi lay dëkk ba faw mislas miha dëkk bi maa ngi lay ñaan ne mel ni turandoom ba ci àjjana turandoom ba ci àjjana garab la goo xam ne yàlla ko liggéey ci loxoom suuxatal ko boppam mu jebbe am ñeenti banqaas ñu ne mandargal ñeenti banqaas yi aboubacrin omar ousman alin waaye nee na libaasu ahlil janna mhm. xadis ba nee na li ñooñ ajjanay sol di génn ci xobi garab yi ba ci uurul ay ni yi takkaay yi ñuy takk seen nopp yeeg seen baaraam yeeg seen loxo yeeg tànk yi mu ngay génn ci xobu garabu Tuubaa est que garab googu yasiru raakibu taxta zilliha miata amin nit mën naa war ci aw fas am kattan di dox téeméeri at te du génn keroog garabug Tuuba te garabug Tuuba hmm. fu waay mën a dëkk ci àjjana moo xam yaa nga darul xaraar jannatul firdawsi ba yaa nga fii maxadi sidxin ba jannatul jalaal foofe mën a nekk nee na xobi garabug Tuuba banqaas bi di ñëw ba ci sa kër jëmbeelu orange pomme fruit mandarine fii genn garab day doon moom mandarin képp ba orange képp ba mango képp waaye bànqaasu garabu Touba benn bànqaas bu ne day am junniy xeetu fruit li nga wax rek dana tax ngëyeen yeeg njaween yi kalaasu alaaji asan ngay gi dinañ gën a farlu kon pour macha allah lam bëggoon mooy dëkk bi doon dëkku barke macha allah nga xam ne mhm. euh, tayib ak lahaa wa shurbahaa mhm. lekk wi na teey te yomb ñi fi dëkk itam na nga yombal seenu dund mhm. ba ba yàgg sax mu ñaan wax fir lu kulli man bihaa qad sakina walillazi lahaa li xayran rakina damaa laajoon sëñ Cheikh ndigal ne ko luy rakina mu ne ma peggi Tuubaa pegg bi ñi dëkk ci pegg bi sax yàlla jéggal na leen am na solo Cheikh Moustapha ñi dëkk si pegg Tuubaa bi sax borom bi subhaanahu wa taala jéggal leen te loolu rek la Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu sax julliti yàlla yi waaye jaami yàlla yépp ndax ba mu dellusee si tukki bi nga xam ne moom la ñuy waaj a fàttaliku di 18 safar la mu waxoon mooy afawtu anil a'da'i turan hmm. jëggal na noon yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp te loolu yaakaar naa jàngale la boo xamante ni bu am solo day sax duggaale si temu ren bi nga xamante ni moom moo di jàmm ci réew mi ak ci li nga xam moom moo di askan wi sëñ Ndiasse maa ngi ñëw si yow nga tàggoo incha allah sëñ Moustapha deux minutes moo ñu dese. Hmm. buñ la ñaanoon. Hmm. nga tënkal ñu loo ñu mën a tënkal ci Matlabul Fawzayni loo ñuy jox. Matlabul Fawzayni daal. bokk na ci bayit yi ma gën a neex wajbu laxal xayra min al jihaati assitti fi fiha anil afati mooy lan sun borom na nga ballal xéewal yi juró yi ne ci xiblay juróom benn yi na bàyyi ko fu nekk di ñëw na yomb na jàppandi xéewal yaa nga dem dafa mu la ne te nakad wak fiha anil afati gàkk-gàkk ba mu dugg tubaa kon maa ngi digal képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu mhm. saxalal jàng Matlabul Fawzayni ndax mhm. boo gisee dafa am ñaari tarjumaan tarjumaan ju njëkk ak tarjumaan ju mujj mhm. tarjumaan ju njëkk ji mhm. lépp alquran la mhm. bismillahi allazi laa yadur ma ismihi shay'un fi ardi wala fi samaa'i wa huwa samiul alim am na quraysh am na inna anzalnaahu wa man yuhaajir fi sabilillah yajid fi l ardi muragaman kasira wa saa loolu mooy sabab mu tax li xasida gi daal di ñaan sunu borom ne ko la nga mayoon ibrahim ak ismail ñuy taxawal julli may ma ko ci dama sama dëkk bii wal tusbitan fihi jamaatan tuqiim as-salawaati al-xams daban yaa hakiim moo tax bi corona amee sëñ Muntaxa ne jumaa ji kenn du ko tëj macha allah kon maa ngi digal képp koo xam ne mhm. yaa ngi dégg sama kaddu saxalal jàng few sëy nii ndax kaaraange la ak mucc la jamono bii ñu toll usaasan mm, Cheikh Moustapha faw sëy nii mën nga koo def juróomi tam te du jeex wallaay dëgg la damaa gis mu wax ci biir xasida gi ne mm. wa an shiraaril xalqi wal razaya wal jinni wal shaytaani wal balaya yàlla incha allah musal wa an shiraari alxalqi yaa ko waxoon ñu bon yi nañ ko sori min sharri min sharri ma xalaqa mooy an shiraari alxalq wal razaya wal jinni wal shaytaani wal balaya ñi sofaanu si mbindeef yi ñëpp nit jinne yeeg seytaane yeeg kayaa fii yeeg rek ñëpp nañ ko sore yàlla nañ ñu sore kon xasida gi ba mu demee bay jeexal mu tarjumaan tarjumaan ju mujj rabbi innaka qulta Mm. wa qawluka alxaqu mm-hmm. wa waxduka sidqu mm. inni qaribun ujibu dahwata daahi isa daani sëriñ mm. Tuubaa ne ko faqat daxawtu ko fa ajib yaa waxoon ne ku ma ñaan ma may la te ku jege laa ah. nee na faqat daxawtu ko ñaan naa la fa ajib dahwati kama waxatta comme nag ñu ko digee nag ñu ko digee woon wallahi laa ñaan sunu borom nag nag lii ma lay ñaan maa ngi lay ñaan ci xa barkeb xasida gi lépp lu ma ci ñaan defal ma ko te nga musal ma ci lépp lu ma muslu wa axizni min kulli mastaastu minka uh, uh, minka bi minka bi jaahi sallallahu alayhi wa sallam macha allah nang ma musal ci lépp lu ma muslu ci mhm. daraja yi xasida gi ci daraja yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon xasida gi daal maa ngi koy dénk képp koo xam ni mhm. as gor nga ab taalibe nga ab julit nga sax ndax xasida gi boo demee ci xasida gum tuddee tuhfatul mutadarriin mhm. waxfir li waalidayya waxfir li jamii ahli wa jumlati sihaabiya samia wax fi li kulli zi taalluqin biya wax kan saadati yaar biya julit bu góor julit bu jigéen ku aju ci man ku ajuwul ci man julit rek jéggal ko macha allah yal na yàlla nangu tey jéggal ñu def ñu ay ñu àjjana ñun ñëpp ñu dëkkaaleeg ñu teddaña cheikhul xadim radiallahu anhu mag ñu baax ña seydil xaaji malik radiallahu anhu suñu maam seydina limaamum maam cheikh abdoulaye ñas fa tabarakallahu cheikh ibrahim alkawlaxi ñas saahibul fayda ak mboolem mag mu baax mu nekk ci réew mi ak sa njaboot ak taalibe yi julliti yàlla yi yal nañu yàlla may ñu dëkkaleeg ajjana ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam njaase yaay tëg Moustapha waxtu bi jeex na looy tàggatoo sa kàddu gu mujj maa ngi lay sant di la gërëm ñoo ko bokk di nuyuwaat cheikh bi di nuyu waa Yoff gépp mhm. góor ak jigéen mhm. mag ak ndaw xarit yi soppe yi ak wëlëre yi macha allah sa Amidoun sa xarit sa wëlëre si Amidoun Touba TV ñu koy nuyu di ko ziyaare Cheikh Amidoun bi ngi ziyaare taalibe yi jullit yi ak fuñ ñu mën a nekk ci biir réew mi ak biti réew mi ñaan suñu borom màggal ak jàmm te lépp ànd ak barke di la gërëm bu baax sa san jërëjëf kooku mooy Cheikh Moustapha Seck dégg ko mu ngi noonu si kaddu yu am solo yi ci xam-xam gi si dal gi. maa ngi gërëm Ibrahima Cissé itam dégg nga nga baal ma. ci macha allah Cissé. Mm. Cissé moom taalibe la si la bokk. Mm. gërëm la bu baax Cheikh Moustapha si disponibilité bi. Mm. fa tabarakallahu gërëm la sant la ci xam-xam bi ci teggin yi waaye itam fa tabarakallahu ni nga xam ne noonu nga jekkoo itam xasaayid yu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ak ni nga xam ne noonu nga koy tegee ci yoon. tey jël nañ matlabul fawzayni incha allah danañu àndaat si tazawudu sixaar ndax ndaw ñi soxlaan nañ ko tazawudu shubbaan yooyu yëpp incha allah danañ si ànd ndax cheikhul xadim radiallahu anhu la mu waxoon rek moom la ñuy fàttali jëf naa ngeen gis bind naa ba fi wax naa ngeen dégg ay bindam yi mu ñu fi bàyyil nag moom lañ fas yéenee di ko barkeeloo incha allahu taala ba yawma thamina achar fi chahri safar di bésu fukkeel ak juróom-ñett si weeru safar mi nga xam ne day war a tombeel ak lundi 4 septembre incha allahu taala atum 2023 gërëm bu baax ñu ñu àndaloon ci liggéey bi gërëm si bu baax fa tabarakallahu président Youssou Ndour ndax xam ngeen ne événement religieux bu amee rawatina màggalu Touba lu ñu defoon daaw rek danaan ren nañu ko yokk ànd ak fa tabarakallahu ay rakkam ay collaborateur am euh, buuba sa programme ba ak njaganduur nga xam ne saa yu ñuy tourné moom mu ngi ñëw toog du début à la Touba moom moo ñu fay njëkk moo ñu fay mujj yal na yàlla yokk dëgëral si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu témoignage la boo xamante ni itam baax na fa tabarakallahu nit ñi xam ko ak taxawaayu groupe Futur Média ci li nga xam ne moo di màggalu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu fàttew ñu euh, directeur général Birane Ndour ak mbooleem mboolem employé yu groupe Futur Média wax nga ko léegi El Hadj Ibrahima Cissé moom itam taalibe la fi mu nekk nii ñun religieux yi nekk si télé bi yëpp suñu jàmm moom fa tabarakallahu comme ni ñu koy waxee jeex na saa su nekk rek voilà mu ngi noonu waaye xéewal la ku deful su ñool mbàkk rek def su ñool mu manqué te ku def si cheikhul xadim radiallahu anhu def ko si ñool def nga si ñool mbàkk muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi seen xaadim siise fa tabarakallahu si caméra bi vie diouf ñoom boni fa tabarakallahu ñoom khadija ñoom abdourahman si son bi ak ñi nga xamante ni ñëpp tudduma leen maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax siise laay jox nuyoo bi rek mu partagé leen ko seen télévision Futur Média mu ngi ñëw ànd ak yéen fa tabarakallahu si ay direct yu am solo ci dëkk bu tedd bu sell ba nga xam ne moom moo di Touba ziyaaraat bu baax Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbàkke ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ak njabootu Cheikhul Xadim gi yëpp radiallahu anhu gërëm bu baax waa Yoof yëpp comme ni ko sëñ Moustapha waxe moom waa petit ba grand foofu rek laay yam fa tabarakallahu macha allah maa ngi koy wax Ibrahima Cissé démb ba ne ko voilà petit ba grand daal Cissé xam na waa waaw junj day na borom xel ñu ngi ziyaar ñëpp fa tabarakallahu ñaanal bu baax Cheikh Mansour Diouf nga xam ne le digne représentant du khalife général de Mourides diggante Yoff Ngor Okam ak Cambérène dimanche bu jot kuréel day am te dañ fay teew Moustapha mën na seede li ñuy wax ndax yàlla nee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee ne ak tagg ak julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek moom lañ fay def kon yàlla na jàmmam yàgg ak waa kuréel gi yëpp ñii di màggal yàlla yàlla def ñu dem si jàmm ñëwaat si jàmm yi xéewal yi yokk ak sutura yi ak bernde yi si daraja yonente bi sallallahu alayhi yow la ñuy jox nga jataay bi comme yaa ko léemu woon nga tëjaat ko rek incha allah ak xasiday ku tedd ki ñu barkeelu si beneen yoon si beneen plateau ak yeneen i borom xam-xam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jazakallahu xayran saz jërëjëf am na solo jërëjëf kontaan nañ seg yàlla na baat bi wér amin seg yàlla na xam bi yokk amin seg wa tabaarakallahu ma sha allah jaasa bismillah bismillahi rahmani rahim شكر ساكرين في البذر سائرين على أسياء زيخ الخديم في البعر بإذن الله باقي الخديم لمذاب عثمان تاب عليهما رحمن قد قال موسى xaadimul xadiimu liman awaata xadumal xadiimi yasailan an sababi tansiimi yawma xuruuji sayxinal xadiimi min daari tudaa bi mbàkke baari bisni xaalixil baraayal baari xarajtu yawma sabti saaminil asar li xidmatil muxtaari fi sëri safar xaraju yow ma sabti saa mi ni nazar li xidmatil muxtaari fi sari sabar taarix ba mooy junneeki ñetti téeméer ak fukki at ak ñetti lim bile wóoru su ngeen ma delloo tey ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xel dellu seete ka faytani xëy maata jax-jaxaa من الليالي فسكرت بجخا محوت عني الأذى والوسخا فبيبذر كل عاد رسغا رديت عنك فلتدم لي يرخا وليا كوني فتى مصرخا بتلزي سنته فانسلخا li wajhikal karimi rudduli ablaxa batatu bayxa sillahi lam yubsaxa xaqdullah wa abadan lan yubsaxa yaa muxdiyan ilaya saaxa dardixa habli firaaxi kulla man tabaddaxa lii kun la fil baari fasirtu sunduxa حين لدا فنيا وجي زلدخا وجي إلي ما أزير مكفخا به ورد لي كل ضاء فانفخا لي سقرا مسلسا قد أفمخا بأنفي متدرجا وسمخا إلي وجي في جوز فردخا وراس كل بنت خا بكردخا دهاء مظلوم خريب سرقا اسمع وسائر فتن مسرقا yéemu yéemuwaa moo leen doon gunge ci seen émission di leen ñaanal màggalu jàmm